Mm-hmm. lii problème bi mooy que jeunesse Sénégal nag bu nu sàggunul daanu jógaat te bu bis bu nu jógaatee daan leen bëgg téye mu tële. Mm-hmm. lii ñuy def Ousmane Sonko du dëgg du yoon teguñu ko fenn. Mm-hmm. amul amul benn droit bi nga xam te ne mën nañ ko indi que ni war a jàpp barricade buntu kër Ousmane Sonko. ay njabootam demunu dikkunu ñi dëkk si koñ ba demunu dikkunu. mais Ousmane Sonko citoyen la comme tout le si dëkk bi la dëkk. Hmm. na leen waxante dëgg ay ñeneen yu def yi ko gën a garaaw te ñu ngi leen bàyyi kenn barricade wu leen kenn defu leen dara. Hmm. am na ñi xam ne moom c'est pas normal parce que bu ñu jógee di wax naan nit ñi ñuy wax kilifa yaa ngi waxtaan ñi ngi def nii waxuñu dara waxuñu dara wala bu ñu waxee it Macky mi ngi def lu ko neex. Hmm. am na ñi am na ñi xam ne moom c'est pas normal nanu nanu dindi barricade bi wala nit ñi jeunesse bi jógaat. jën na jeunesse bi jogaat bu ñu jogaatee daañu ko dindi par la force bu ñu ko bu ñu jogaatee bu ta jar na sax bu tabaski am. <laughs> parce que yéen ñi dafa métti <laughs> waaye jar na sax bu tabax. Ah, parce que fu mu yow. ah waaw. man tey tey bu ma yoroon ay millions. Mhm. man bu ma yore ay yore ay millions nekk Sénégal. mu leer ni ma waa Sénégal ñi ngi xeex te am amatu fa béyee fa am di tabaski man su ma yoree million amee njëgu xar te may gor dëgg du ma jënd xar béy laay jënd na samay moroom tabaski. Mm-hmm. mais lii c'est pas normal parce que Ousmane Sonko Ousmane Sonko nit la comme ñun ñun ñun ñoo tax mu ñun ñoo tax mu mel mu mel ñun ñoo tax ñu koy teg yi ñu koy teg mm-hmm. kon na nanu bokk ànd ak moom bañ dem topp bañ tabaski bu fekkee duñ ko ba mu tabaski rek nanu bokk ànd ak moom bañ tabaski tabaski bañ am <laughs> jërëjëf nu may jéggalu nag. merci beaucoup sëñ bi merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, Badara sëñ bi nee na. nee <laughs> ne ko bu tabaski. Ah, doy na waar doy na waar en tout cas en tout cas. Uh, fi nga xam ne uh, tombe na at ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi daal di woote jeunesse bi képp koo xam ne rek uh, gis na li nga xam ne ñu ngi koy teg leader Pastef boobu di Ousmane Sonko eh, ñu ngi jàpp ne rek eh, war a ngaa mën a génn eh, ñoom rek ñu jubali fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi daal di dindi li fa nekk waaye nag Badara est-ce que loolu dina mën a nekk jamono ji sénégalais yëpp seen xel yi ci xar la nekk ñenn ñi instant billaay ñu dara lu dul événement bi. donc bu ñu leen naree tegaat le fait que ñuy dem euh, ay manifestation wala di dem ngir euh, dindi li nga xam ne moom moo nekk fële ci domicile Ousmane ko donc euh, dina doon loo xam ne lu metti lay doon vraiment. Sali wax nga dëgg dina nekk lu lu metti lu doy waar. Mhm. parce que man dama koy xool ci deux contextes quoi. parce que boo xool dañu woo li nga xam moom mooy jeunesse bi ñu génn ànd ak ñoom dem fi nga xamante ni si moom mooy kër Ousmane Sonko. Mhm. dina barricade bi nga xam moo fa am Euh, jeunesse boobu est-ce que dinañ leen wuyu ci si loolu instant bi waaye c'est la question qu'on bu xaw a doy muy contexte tabaski euh, keroog dañu wax sur terrain boo xoolee. Mhm. Euh, la plupart surtout côté xar yi la plupart ay jeunes ñu doon yor di leen jaay ah. ñoo xamante ni si ni ay menuisier lañ. ay mhm. mécaniciens lañ. ay ay étudiants sax peut-être nekk ci. Mhm. di def li nga xam moom mooy jaay xar période la rek dañ koy génne seen xar même une semaine. jaay mhm, ko nekkaat seen activité. Mhm. parce que boo xoolee fii nii doo fay gis ay jeunes de plus ay magu 60 wala 5 70 yu ndaw nga fay gis. 30 ans ñoo jaay xar yi. vraiment mu mel ni mu mel ni am na ku nekk ci bi salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. sëñ bi nuyu nañ la. ñu delloo ziar bu wër. man la canta bi maa ngi lay woowee depuis Italie. Hmm, est-ce que doo yokk sa baat tuuti. ma ne man la canta bi maa ngi lay woowee dëpp Italie. d'accord ziar nañ la bu wër. ñu ngi delloo ziar di rafetlu liggéey bi. merci beaucoup. waaw dañuy wax rek euh, que sénégalais dafa am loo xamante ni dafa dafa ëpp importance tabaski ëpp importance série ëpp importance vacances ëpp importance lépp xamaloo la. Mm-hmm. mooy taxawaay boo xamante ne mooy defar sa réew quoi faire l'histoire faire partie de l'histoire mu ëpp solo loolu ne pas subir l'histoire quoi parce que tey jii nii bu ñu toogee Sénégal ak ni mu mel. Mm-hmm. regardez le Sénégal depuis des années les gens vivent difficilement survivent la soxla à la parce que da gis koo xamante ne day ndékki du am lu mu añee wala mu añ du am lu mu reeree. Mm-hmm. tabaski jot en fait imagine une famille qui n'arrive pas à avoir cent cinquante mille francs par mois tey jii ñu imposer la nga jënd benn xar deux cent mille tabaski da lay wàcc quoi parce que da nga koy dem leb après tabaski paas nga continuer di fay bor yi di bëgg survivre mm-hmm. genre donc te loolu noonu li leen ko teg mooy ay njiit yoo xamante ni toppatoo wuñ leen lijjanti wuñ leen ci li leen neex lañ leen nekk nekk ci tànku noot leen hmm. léegi xeex loolu jóge fi dafa gën nga tam nga tabaski ren bi yow nga teg ko de côté pour que yeneen tabaski yi di ñëw nga mën ko def sereinement parce que ce qu'on nous dañuy waajal tabaski bi nit ñi dañuy dem jënd yére et salaire bu baax amu fa kenn matlewu fa day hmm. fii ngeen ñun on est en Europe dañuy woo fii tu as plus de vingt trente personnes qui t'appellent qui te disent que dama soxla dàll bi dama soxla yére bi dama soxla xar Sénégal war a continuer di dundee noonu ñoom ñu accepté ko ba pare mel ni loolu noonu da leen a neex donc lépp lu ñu doon xeex loo xamante ni mooy améliorer seen life bu jotee ñu xeex ko ñu nar ko mhm. teg de te pour une journée de tabaski pour une journée de tu imagines soxna si mhm. est-ce que nit ñi ñi ngi réfléchir man loolu la ça me fait ça me dafa mel ni ñi nekk bitim réew ñoom en fait ñoom ñooy sacrifier seen life pour ceux qui là jusqu'à quand. Mm-hmm. te ñoom du ñu jéem en fait génn ci lu ñu nekk ñu jàppale leen ci ñëpp avancé ndox gis nga dans un pays bu kenn rek riche bëgg dimbali ñëpp du sotti. Mm-hmm. il faut que équilibre di am ci société bi te su équilibre boobu lu koy may mooy nit ñi jóg xeex ngir justice xeex ngir équité xeex ngir. am liggéey bu baax boo xamante ni ndaw ñi ci la ñuy nekk parce que on est à soixante quinze pour cent de jeunes au Sénégal. Mm-hmm. on a une jeunesse c'est-à-dire qu'on a la force on a des ressources on a les terres on a l'eau mm-hmm. li tax développé ñu question de leader la de leadership la et de gestion mm gouvernementale parce que depuis l'indépendance on a que des vieux dans dans dans l'État en fait imagine Moustapha Niasse qui qui qui dirige un dialogue alors que l'indépendance fii la ko te yow ti yow mii toog yaa ko gën a comprendre réalité Sénégal. Mm-hmm. parce que il est depuis des années il est assis il des milliards xamul réalité bi nekk ci banlieue bi xamul la xew Koumpentoum après il dirige un jalo pour ñu ne ci ci loolu la ñuy basé on va refaire le Sénégal. Mm-hmm. mais imaginez qu'on se dise la vérité foog nit ñi xama gën a prêter attention en fait ci ñii ni ñuy doxee te aussi itam. qu'on enlève le blocus c'est son c'est Sonko ñu dind ko ba mu set wicc te loolu jar na population bi def en masse dem def fa ay xama di fa fanaan di fa yeew da pacifiquement dem dem def fa ay tànt sax fanaan ci koñ ba wala koñ yi ko wër mm-hmm. xama pour que ñu libère une manière de protester pacifiquement tu vois la Maison Blanche da ngay gis ñoo xam ne am na lu ñuy lu ñuy bañ dañu jël seen tànt dem buntu Maison Blanche dëkk fa ba li ñuy xeex noonu ñu am ko ñu jóge fa. Mm-hmm. c'est ça ça sa parti de la démocratie. on est dans pays da ngay xëy bloqué nit ki wala nga xëy dugg ci koñ jàpp benn xale yóbbu prison sans pour autant avoir des des des des preuves. Mm-hmm. pour ci li ngay accusé. Sénégal ngay gis dëkk boo xam dañuy jàpp nit ba pare doo ko dem di enquêter on accepte ça après ñuy toog dañuy wax waxu tabas. Mm-hmm. yenn instant nit ñi monde bu ñu leen déggee sax dañ leen dañ leen mere quoi avec tout ce qui sa passe. à l'international les gens soutiennent les sénégalais foo dem ñu naan la lii on vous soutient on vous soutient après ñuy dégg ni fa teg nañ loolu noonu ñu ngi dem préparer pour fête ji mm-hmm. c'est quoi c'est des conneries ngeen baal ma man mm-hmm. bien que les gens nañ nañ gën a tijjiwaat seen xel yi gën a gën a réfléchir xam ni ñoom li ñu dëgmal moo ëpp solo tabaski tabaski du farata sunna la nga mën ko nga def ko mënoo ko yàlla wàccee na la ko pourquoi devrons-nous insister sur des choses comme ça sur ak ak affaire yu ñàkk fayda quoi une lutte day métti day yàgg mais faut bien tenir faut bien continuer le combat parce que objectif bi soreetul loolu rek laay wax sénégalais yi nañ nañ nekk ci loolu quoi tabaski moom bu ku nar a tabaski di nga tabaski ku ko narul tam nga xam ne loolu la yàlla dogal quoi et on avance la vie continue mais il faut que Sénégal change d'accord remercie beaucoup merci beaucoup sëñ bi euh, ñu koy remercier bu baax a baax a baax euh, ci contribution bi euh, comme niñ ko waxee woon rek li nga xam ne jamono ji moom moo am fi nga xam ne moom mooy cité kër góor gi ñëpp gis nañ ko eh, gis nañ aussi que ni eh, même eh, pôle d'avocat wu Ousmane Sonko amuñu accès ci li nga xam ne rek moom mooy domicile boobu gisoon nañu nañ récemment ñu ñuy wax que ni ki nga xam ne moom mooy protocole am sax dañ ko daal di empêcher à mu ñëw ci ci li nga xam ne moom mooy domicile Ousmane Sonko donc mu doon situation boo xam ne tout le monde jamono ji dañuy jàpp ne Eh, kii di Ousmane eh, Sonko dañ ko daal di eh, séquestré ndaxte boo seetloo ci li ñuy wax rek à chaque fois dañu naan Ousmane Sonko mel na ni dafa nekk sous résidence surveillée sans pour sax ñu joxe li nga xam ne moom mooy notification ndaxte jamono ji gisuñu lenn loo xam ne mën nañ koo teg ci table bi wane que ne Ousmane Sonko est sous résidence surveillée mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, sëñ bi nuyu nañ la. fay nañ la 2A TV. 2A euh, TV tur bi at fooy wootee. waaw Kooru Maak Maroc Kooru Maak Tine Maroc. waaw euh, nañ la bu wër. waaw ñu ngi delloo ziar di di ziar yëpp. di mhm. nuyu Soxna Jaara. Mhm. di ñaan jëm ak sutura Sénégal rek. amiin. ah aussi tey ñaan population bi aussi ñoom ñëpp képp ku ko man rek. képp ko man mm-hmm. ñoom ñu ànd bokk ci mbooloo mi dem kër ñoom kër kër Ousmane Sonko mm-hmm. pour dindi barikatir bi mm-hmm. parce que bu doon jàpp naa ne bu doon yoon la moom dañoo war a bàyyi yoon def yoon mais comme yoon moo tax taxawaatul ci yoon man personnel de ma part maa ngi ñaan ba ci APR sa APR ba ci zone zone su APR bi sax parce que seen njiit yi ñoom ñoo nekkatul ci yoon kon na ñëpp ñëpp ñëpp mobiliser dem buntu kër Ousmane Sonko dindi barikatir bi. Mhm. man nag maa ngi ñaan kenn bu mu sànni kenn bu mu lakk kenn bu mu def dara. Mhm. ndax itam ah, ngay tegi tooñ ba tooñ itam loolu d'accord ma ci kon maa ngi ñaan ñëpp nañ ñëpp ànd ci daan mobiliser. Mhm. kenn bañ a des na jaral ñëpp na na jaral ku nekk sax nga ñaan ku bu koo xamante ne maanaam da ngay am pataro nga ñaan sa pataro mu may la pour nga dem fekke ko. Mhm. képp ku nekk sa liggéey bopp itam nga fexe arrêté sa liggéey pour benn jour ñaari fan mhm. nga dem ndax itam ti euh, jàpp naa ci jaamu yàlla la bokk mhm. ndax jullit bu ñuy nee wax doole nga ñëw pour jàppale ko te la tax loolu ci jaamu yàlla la bokk kon maa ngi ñaan bépp population Sénégal mag ak ndaw góor ak jigéen képp ku ko man arrêté sa liggéey dem jàpp ci ndax lii combat Sénégal la maa ñaan itam. Mm-hmm. état bi na gën a dawal yurmande. na gën a dawal yurmande gis nga troisième mandat bi ñuy wax ni mm-hmm. man Kor Martin ba léegi gamaguma gamu gamu ma ne. Macky Sall dina génne làmmiñam ne dinaa def troisième mandat xalaatu ko pour man. Mm-hmm. parce que gis nga képp kuy seetaan 2A TV bii commencement bi rek boo gisee waxu boo dégloo waxu Macky Sall yu njëkk yi. ak ay nitam seeni wax yu njëkk ak maanaam nu ñu nu ñu tëralee tëralee affaire troisième mandat ba teg rek. Mhm. da ngay gam ne kii nit lu mu ñàkk ñàkk ñàkk ngor nu mu gaaw a gaaw a nit lu mu ñàkk ñàkk ñàkk xalaat xel xalaatul ne Macky Sall day def troisième mandat. Mhm. lii nag xalaat naa ko moom dem pour dal fatal benn opposition loolu mun na am te itam maa ngi ñaan Macky Sall loolu bu mu ko essayé. parce que moom moo na am woy boo xamante ne Sénégal woy dootul fay bu mukk ndax lu baax parce que man nag jàpp naa ne man du ma Macky de mais jàpp naa ne état yi fi mos a jaar yëpp état Macky moo ci gën a liggéey mm-hmm. waaw Sénégal changement bu mu am jàpp naa ne bi Sénégal di Sénégal ba tey nu mu mel nu ci jamonoy Macky maanaam mosut a mel noonu waaye nag dafa mel ni nit ki yëkkati immeuble bu mu des bu mu des bu mu des euh, mu door ko ay mart mu bugg a daanu loolu bu mu dal Macky Sall ah wooyam Sénégal muy commencé ñaaw te sax ñaaw na à 60 pour cent na ko jéem a defar. Mhm. te jàkkaarloo bu mu bugg a jàkkaarloo ak askanam le cinq su ma juumul. Mhm. man gam naa sax dina wax ba wax jeex sax du wax ay affaire troisième mandat parce que li muy wax laa xamul damay def troisième mandat loolu xejul ci ci lamiñu góor xejul ci lamiñu góor Macky nag dama ko yërëm. fi ma ko hmm. yërëmee mooy Macky man jàpp naa ne lii mu nekk ni teyatu ko teyu ko <laughs> parce que ay nit bu ñu la wooree hmm. jël ay morceau takk ko ci sa ci say ci say bot boo xamoo fi ngay jóge xamoo ci kam nga jublu xamoo ci ci ci yoon bu baax nga jublu hmm. dama yaakaar Macky foofu la tollu tey kon ñi ko wër nañ xool yara ragal yàlla euh, yaram Macky ak njabootam ñoom ñu jéem a jubal parce que gam naa ne lii du li Macky tey parce que ay waxam boo koy déglu da ne mais man ñun ci ban aduna lañ nekk ab kilifa di wax wax ji ba pare ñuy jéem a xalaat wala sikki saka man Koro Mack xalaatuma ne Macky Sall dina xalaata def ay troisième mandat xalaatuma ko. Mm-hmm. Euh, fi may tijjee mooy jàpp naa ne Sénégal li ci li li gën a yëngal affaire bi Macky personnel am na benn wax bu mu waxoon mu tuuti lool ci nopp te doon lu rey muy man duma gis lu xonq gis nga président mag Ablaye woon maa ngi ñaan yàlla yàlla dolli ko gudd fan bu ànd ak weer. Hmm. mais gis nga moom dafa muusoon muus boo xamante ne fa mu fa mu fa mu validé woon maanaam képp am li la naqare taxal morso bu xonq hmm. su ma gisee siñ bon ma xam ne kat sama population bi amuñu lu leen ne. <laughs> mag dafa waroon bàyyi loolu jàll mais bu taxawee dinaa du ma gis lu xonq te nit boo mere boo meree amoo doole amoo amoo amoo amoo amoo kattanu wax nit ñi dégg la amoo kii nit ñi dégg la da ngay taxaw xee li mhm. sonal Macky loolu bokk na ci gis nga na bàyyi ku bugg a ñaxtu ñaxtu mais dama ñaxtu doo ko fi ñaxtu doo ko fi waxee te dama dama lay not dama la def lu la ne loolu musiba lay indi ci réew maa ngi ziar ñëpp di jégal bu baax a baax ci kàddu yi. amul solo salaamaaleykum wa rahmatulah. amul solo Koromack ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax li wax am na. am na solo vraiment ndaxte euh, comme euh, euh, Badara comme niñ ko waxee début bi bu seen kàddu di daw gis nga discours président Macky Sall bi nga xam ne moom lay wax ci li nga xam ne ñel na wàllum troisième mandat waaye itam moom ci boppam. war na xalaat que ne jamono ji nga xam ne mu ngi doon xeex wàllum troisième mandat ba mu am ay mort lu lu tollook onze personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan en deux mille vingt en deux mille onze donc mu doonoon situation boo xam ne ñëpp gis nañ ko te ñoom ci boppam ñoo wàccoon ci terrain bi euh, di jàmmarloo at euh, lépp loo xam ne rek euh, doon na mbiru constitution waaye itam lépp li nga xam ne wàllum troisième mandat la ñu jàpp ne loolu dafee war a dakk donc du moom tey moom mooy wëlbatiku di wax ci mbiru troisième mandat te je pense que ne ñi nga xam ne nekk nañ ci nekk nañu at moom tamit xam nañ bu baax que ne le président Macky Sall ne doit pas être candidat Euh, aux élections présidentielles deux mille deux mille vingt quatre Badara. Euh, waaw Sali comme ni ko image yi wane rek yaa ngi gis noonu leader yi ñoom. Mhm. période boobu ñoom ñoo nekkoon ci li nga xam moom mooy opposition bi mhm. doon xeex troisième nga xamante si kii di euh, maître Abdoulaye ko déposé ñoom ñu jàppoon que ni loolu noonu c'est illégal c'est mhm. pas normal kooku di mhm. ki nga xamante si moom mooy euh, président Macky Sall euh, temps yi nii mun nii mun nañu ñaar ba benn attaque yi nii problème mu Sénégal yëpp dafa concentré wu nga xamante si moom mooy troisième mandat ki nga xamante ni si moom mooy président Macky Sall xëy na nag comme ni ma leen waxee sànq rek euh, peut-être le bii ñu bu génnee xëy na bokk dina ci wax li nga xamante ni sii dina ci am ay leeral parce que mhm. tamit élection yi soreetul mhm. soreetul sore sore te war na war na war nga dindi sénégalais yi vraiment vraiment on est fatigué mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, sëñ bi nuyu nañ la waaye fay naa la fay naa la man nag dama lay danaa la lay yóbbante nuyu ci suma maam maam jaar sa su ma duggee rek ma ne ko nuyul ma Seyda moomu ngay mu sa beneen naataango boobu noonu. Mm-hmm. tur bi naka la yow. man Sali la Sali. ah mu ngoog noonu la may wax mu ne ma soxna Salimatu waaw Salimatu. <laughs> naka mu yaa ngi si jaam. waa ñu ngi ci jàmm ñu ngi lay woowee fii Gàmbi Mouhamadul Bachir maam man maay satu maam Jaara. ndeysaan. <laughs> ni maa ngi nuyu maa ngi nuyu imaam bu baax boobu nga toogal maa ngi koy ziyaara. Mm-hmm. di nuyu ñëpp foofu noonu waaw yéen moom wax dëgg yàlla yéen a ngi dimbalanteeg askan wi Sénégal bitim réew. ñëpp ñëpp ñu ku leen di déglu rek dina xam. yéen itam seen taxawaay bu rafet bi ngeen am. ci yaatal merci beaucoup kon yàlla yàlla yaatal seen bu baax a baax. a baax amiin amiin amiin. waaw mu mel ni euh, xam nga salimatu luy xew mooy. Mm-hmm. ñu ëpp ci askan wi dañ foog ne politique daal moom mooy nit ki mën naa wax lu ko neex. Mm-hmm. waaye saa yu ko neexee mu ne maa waxoon waaye wàqeet loolu nag dafa xaw a doy loolu lañu loolu lañ xamul ban façon politique la te man gis naa bu maa topp programme yu bëri damay dégg ñenn ñenn ndekee mhm. politique maye ne bu fekkee ne yow da nga nekk euh, koo xam ne opposition nga mhm. man ma nekk ci kii man na mën naa laa gasal pax man naa laa fexeel pexe mu lépp lu ma def daal pour euh, yàqal la ma dagan na waaye loolu mhm. man gis-gis boobu man foog naa ne Afrique war nañoo romb foofu noonu non Afrique war nañoo romb man ak fu ma mën a nekk fu ma mën a féetoo ma gis na lii man kenn moomuma ko ndax réew njiit njiital réew wala nekk dara képp kuy doomu réew muy àq ak yelleef ci yow nga jàng am xam-xam bi am jikko bi. Mhm. amul nag lenn lenn ndax dangay seetaan ñoo xam ne boo leen di seetaan sax da ngay dem ba euh, yow da ngay doo xam ne ci ban àdduna lañ nekk. Mhm. ndax salimatu koo xam ne jaar na ci nguur. Euh, euh, liggéey na ci ba xëy na. waxtum jeex na mu ñëwaat bokkaat ci nguur war a mën a taxaw wax ne yoon la ci politique. Mm-hmm. boo bu ma bu boo gisee nit koo xam ne mu ngee dem te moom kat war naa mën a nekk dara. yow noo ko mën a galgalee xoolal waxin bu ñaaw boobu noo ko mën a galgalee rek na nga ko galgal loolu nit dina ko wax. Mm-hmm. sali nañ bàyyi caaxaan yi te xam ne réew at nit ñi kenn moomul leen. Mm-hmm. Afrique kenn moomu ko Sénégal kenn moomu ko Gambie kenn moomu ko nit nit la tudd. Mhm. nit ku ne cëram ba mu ko ko yàlla di jox pare na ca nit mënu ca dara. Mhm. nañ génnee kañaan geeg soxor gi ci ñenn ñi nga xam ne nag ni dañ toll woon ci war a buñ gisee tey ndaw ñi aw beneen yoon ñoo waroon jiitu won yoon wi na leen hey kaay leen ñu wan leen yoon wi ñu jaaroon ba agsi fii waaye ñooña tey ñooy jaar ca yoon wa xale yi di am euh, lu ñoo jomb ak lu ñoo rus ci ñooñe di leen dégg sax ñuy wax di toog ci pal yenn plateforme yi wala yenn débat yi dafay dema dem ba yow doo xam ban àdduna la nekk léegi Salimata maa ngi jégalu yàgg naa ci ligne bi amul amul solo amul solo. waaw nuyu kilifa googu nga toogal euh, maa ngi nuyu ñëpp nag foofu noonu. di leen mm-hmm. jaajëfal di nuyu suma maam ju baax ji waaye di ko teg sa loxo Salimata. incha allah dina ko dina ko dégg incha allah. merci beaucoup merci beaucoup ñu lay. Euh, jaajëfal bu baax a